Mm-hmm. mais ñi nga xamante ne ñun ñooñu jiite ñoom ñoo ci mën a am benn aura international boobu donc je que li nga wax nii bu doon na def nekk loo xamul lu rafet la et loolu dina mën a gën a permettre aussi vraiment ñu xam. chef religieux sen seen fi ci biir réew mi ak aussi ci bitim réew ngoog euh, ñu wax nak sëñ Saaliw ci enquête bi ñëll fukki bébé ak ben yi ñak sen bakkan ci hôpital mam Abdoul Aziz ci Dabakh bu euh, tiwawan ñaari agent yi doon liggéey bés boobule amati nañ retour de parquet bi moy ñattelu yoon bi mu ci Awa Diop sage femme ak Kumba Mbabor et infirmière ñuy fàttali ni ci garde à vue la ñu nekkoon ca commissariat bu police bu tiwawan dimanche balawon mardi bi ñu defeere leen ca mu procureur bu tribunal bu grande instance euh, bu euh, bu Thiès Mansour kon euh, enquête bi mu ngi wéy ba tey retour de parquet bi mo ñetteelu yoon. moma xaw moom xaw a jaaxal. xëy na yoon amna sañ-sañu téye ngir continuer ay enquête am ñu ngi xaar audit normalement bu ministère de la santé. Mm-hmm. amna itam enquête bu ñu ni sant nañ ko wa senelek lolu Abdoulaye Diouf sar sax moko annoncé won bis bi ñu koy wàccee. Mm-hmm. donc ñu njort ni itam ñanga nga ca en attendant évolution enquête yoy ak itam xam lu ci responsabilité ñooñu ñu arrêté question bi moy est-ce que dañ leen wara a arrêté wala dañ leen wara a ba en attendant. ñu yegg ci cëppaandaw yi jéxal li tax ñu téyé leen. loolu yoon mom moy jël décision bi nga xamné moy déterminer loolu de toute façon du enquête beeg dakk yek fal yu bees yeeg yooyu mooy lijjanti situation bi. lak amna na Tiwaawoon amon na linga nit ñaa dé ci anam go xam jaadu système santé lañu wara défarat de façon globale tay dama am chance dem set un dem ci ben hôpital uniquement pour visiter un service mhm. odontologie bu euh, hôpital Abbas Ndaw mhm. mais même les sénégalais xamuñu sax ni fi amna na buy faj alors que amna des ay atelier yu gëna performant ci Sénégal mhm. parce que communication si paasiwul parce que orienté wuñ fa nit ñi parce que nit ñi amuñu yaakaar ci santé publique alors que ñi ñi gën a mën a faj ñi ëpp xam-xam ak ay matériel am nañu ko. Mhm. mais c'est-à-dire communication boobu ak politique boobu nga xam day attirer nit ñi di leen gën a di gën a dalal seen xel. Mhm. non seulement coût bi dafay gën a wàññeeku mais seen yëf la affaire publique la pas plus tard maa ngi seetaan benn documentaire dama ma dama ci ci Sénégal fekk ñu wax kaawu Maroc. ñu wax ci affaire njàng mi ak kat yi ginnaw école publique ni ñi exiger lay ay cours d'histoire yoo xam ne ay pay lay nekk. Mhm. ma mani ko xana ni loolu Sénégal la cest dire yu mel nonu day dem ba yak ay secteur yu bëree bëri ba nit ñi ñu am confiance ci seen dëkk fi ne Sénégal bi ci bopam ci santé bi la amul confiance. Mhm. tey nañu len ñu ngi len di déglu daañu suite responsable waye xana xam damaa damaa ni ñom rek ndaysan mhm. ñom ñoñu rek ndeysaan ñàkk wéeruwaaye kantan loolu xanaa du fay duñu duñu duñu nekk ba yu salax bi xanaa ci li ma foog. Mhm. Euh, justement euh, yi ñoom dañu jàpp ne xëy na ñii ñoom ñoo fi gën a oyof wéeruwaay ba nga xamante ne ñoom lañ bëgg a jàppee anneau de sacrifice bi ndax ñoom nee nañu seen yoon nekkul ci court circuit. bon xam nga vraiment man su ma gisee retour de parquet yi damay dem ba finalement ma ne yëf yi acharnement la. Mhm. xam nga lu gën a grave mooy gis nga affaire su amee. toujours lampiste yi la ñuy a sonal. Mhm. ñi nga xam ne ñoo ci gëna a oyof waaw ñamul bàjjen wala ñamul way comme ni nga koy waxe alage mhm. parce que on a parlé d'un problème de court-circuit. Mhm. mais lool installation électrique la. mais installation euh, électrique kan moko def marché bi kan lañ ko jox est-ce que amoon certification technique ni fi war nañ fi mëna def nangam ak nangam ak nangam donc c'est tout un ensemble moi je crois que tay déjà li nga xamantene xewon na Linguère xewat fi dafa war a yee nit ñi a yenn installation électrique yi dafa war a aussi yenn matériels yi nga xam moom la ñuy jënd mhm. parce que il nañu wax une installation électrique mais matériel couveuse yi nga xam ne moom fi indi façon couveuse la mhm. est-ce que y a yenn euh, kii électrique yi yenn décharge électrique est-ce que atteint ko parce que aussi il faut se dire que marché yu bari yi nga xamante ne passé nañ ko pendant Covid bi matériel yu ci bëri matériel yu tog tog la mm-hmm. yu ci bëri matériel yu yëpp matériel tog la moo tax ma ne fi ñu toll nii audit bi nga xam ne waa IG moom la ñuy def war na nekk un audit global mm-hmm. ñu xoolaat non seulement tous les matériels yi nga xam moom la ñu acquérir pendant le Covid mais xool aussi euh, installation yi nga xamante ne moom lañ def ci yenn batiment public surtout yi nga xam waa AGETIP lañ ko joxoon mm-hmm. parce que dañ ne Saint-Louis fële Linguère AGETIP la woon fii aussi nee nañ encore AGETIP la woon donc il y a lieu aussi waa AGETIP yi ñoom aussi ñu interroger leen laaj leen ñoom lan moo waral chaque fois batiment yi nga xamante ne ñoom ñoom la ñuy construire bâtiment yooyu mooy am problème te ñu bàyyi vraiment ñi nga xamante ñoo ñu acharné seen kaw mhm. il est que mën nañ leen enquête mais depuis un certain moment ñooñu rek ngay dégg comme si nous ce sont les agents les responsables directs or les véritables responsables mooy ñi nga xam ne ñoo permettre ba nga xam ne courant bi tëb foofu sote ñooñu responsable yi mm-hmm. il faut qu'on se qu'on se tourne vers les vrais responsables te bàyyi vraiment sage famille quand même cette fois-ci franchement mën naa mën ne même suñu ci responsabilité aussi vraiment responsabilité bu moindre lañ ci am waaw bon non duñu responsabilité franchement euh, fa la ñuy jaaree sax wax ci jokkalante lenge yi nga xamante ne moom moo doxal doxoon tey ci diggante Abdoulaye Diouf Sarr ak Marie Khemesse ngoom Ndiaye muy jëwriñ bu bees bi ñu dénk wàllu wergu yaram ak action sociale euh, kii fii nekkoon euh, jëwriñ bi di Abdoulaye Diouf Sarr daal ci porox ndollu moom di rafetlu liggéey bi nga xamante ne def nañu ko def na ko bi ñu ko dénkee yëf yi ak résultat yu baax yi nga xamante ne nee na am na ko euh, kile di Marie Khemesse ngoom kon Abdoulaye Diouf Sarr ñaanal ko waaye Marie Khemesse itam di xam le ni bilan bu Abdoulaye Diouf Sarr moom loxoom génnu ca ñu ond ceeg Marie Khemesse Ngom C'est le plus beau cadeau dont je ne me glorifie pas car ce n'était que ma mission. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu et remercie mes parents, mes épouses, mes enfants, toute ma famille. Je voudrais également saluer et remercier les collaborateurs, les amis. Mais euh, je l'ai dit et je le répète, remercier son excellence le président de la plus je lui disais que je ne sais même pas pourquoi il m'a changé je ne sais même pas. je ne sais même pas pourquoi le ministre Abdoulaye Diouf m'avait choisi je le dis chaque fois ici dans ce salle pourquoi vous m'avez choisi vous ne me connaissez pas. kon Mansour Abdoulaye Diouf Sarr dégg nañu ko moom mu ngi lou résultat yi nga xamante am na ko ci bi ko euh, joxee yëf yi ak réussite bi nga xamante ne na def na ci. golo defoon la golo da génn ci dex gi ñu taxaw ci setu bi xol bopam mom neex ko ni badé badé ba dee xamuñu rafet badé dee xamuñu ñaaw badé badé dal la wax Abdoulaye Diouf mën mënut wax loolu bilan mais Sénégal gi ak li fi lak ci hôpital ñi mortalité maternelle. ciowul Covid 19 bi leerul. ak yenen ak yenen mu antane taxaw ni mom amna bilan xana bilan wu boppam. non Sénégal yéeguñu bilan abla Diouf Sarr nag. xam nga li nak mom li nak mom ah taskatu xibaar nag ñoo mën a taxaw riposte wala def micro trottoir laaj askan bi mais ku ñu laaj day bu ñu laajoon junni nit ñaaree dëggal moom li mu wax. xëy na ci Covid bi la bëgg a wax. Covid kat moom dafay jaaroon dong jàll santé du Covid. système mu santé bi doxalinam du Covid Covid kenn waajalu ko sax ci santé. Mm-hmm. dëgg-dëgg luy benn épidémie bu fay jaar noonu jàll kenn waajalu ko ci santé système bi la ñu wax. centre de santé yu ñu transformé hôpital Sénégal wa di construire ay hôpital mhm. ay case de santé yu ay poxu kañ nek mhm. ay nit bonne volonté yu tabax ay dispensaire jox leen ko ñu lank bañ koo exploité. cooxe googu nga xamni ni ni jooni nit ñoo fa nekk wala ñaari jooni nit norme internationale respecté wuñu ko école yi jangalaté walu santé ni fi gad mhm. ñi am qualification ken recruté wu leen nit ñu bindal ko ordonnance mo war dox 10 km pour gis pharmacie. pharmaciens yi jooytu ba tey ci anam gi ñuy joxe sañ-sañu implanté pharmacie loolu yàggul jooytu nañ ko ba bëgg a bëgg a dee moom muy jël arrêté am di jox ñu ko neex waaye ab la Diouf Sarr ban bilan bu sati bu satisfaire Sénégalais yi la fi def waaye ñu koy ñaanal ngelawam nangu nag waaye nag li mu li mu waxee ak ñun ni ñu dund bokk la ah. mu nga ki ki ko wuute wutu Serigne Saliou dégg nañu ko moom nee na euh, bilan bële kenn mënu ko cee loxoom génnu ca tey ndax kon dina mën a relever défi bi bu ñu xamee ni mook la ñoo doon bon de toute façon ñun day on oh, lui souhaite bon vent comme on dit mais li mu wax dëgg la mooy c'était la directrice générale de la santé publique donc moom loxoom génnul ci bilan Abdoulaye Diouf Sarr négatif comme positif Diouf Sarr nag ah li ñaan ko tagg sa bopp doo jóom <laughs> je crois que du quitter, di wax ne man damaa échoué mhm. ki nga xam ne sax dafa lamantaama échoué boobu ba mu xam ko suy dem aussi danaan man

moo aboutir ci li nga xamante ne moo xew Linguère ba pare xew Louga xew Tivaouane li guddoo la rek qui a fait de bon élevage wante échec bi moom je crois que c' est, c' est un échec global holistique comme on parce que soo gisee système de santé Sénégal ni nga xam ne moom lay fonctionner tey tant que réformé wuñ ko kii nga xam ne moo ko wutu nii xoolal dina liggéey bay bëgg a dee mais du am résultat parce que il faut ñu réformer le système de santé il faut ñu auditer waat santé bi xool ñi nga xam ne présentement ñoo ci nekk parce que personnel bi bëri na bëri waay goo xamante ne ni te la plupart du temps ñu ci bëri ñi nga xam dañ ca nekk amuñu benn formation loolu moo indi problème yi nga xam moo nekk dans nos centres de santé et dans nos dans donc je crois que moom li ñu en tout cas ay chantier yu reuy ñoo koy xaar chantier nak nag il faut mu xam ko mhm. xam aussi nan lay defee ay réforme moom su fekk ne bëgn na am ay résultat fi ak muy jógee ci euh, ci li nga mom lañ ko jox ngok Serigne Saliou ba tey ci walu wergu gu yaram institut Pasteur bu euh, Dakar demone na ci chantier euh, fi nga xamante fofu lañu la ñu vaccin yi mu nekk ci Diamniadio banque européenne d'investissement dal di signer sax ab partenariat ak groupe Sénégal génn lu tolloog juróom fukki milliards ci suñu ay koppar euh, vaccinopole bu institut Pasteur bu Ndakaaru euh, at bu nek euh, dinañu defar lu tolok ñetti téméri million ci ay vaccin lañu ci bëgg nak moo Sénégal ak Afrique say suñu soxlawee vaccin ñu bañ dem diko jigani ji ñu ond ci ak hadidjouf Diouf Institut Pasteur dal